contact bi ak entraînement yi te combat bi métti na bi nga bëree ak bi nga bëriwaat matul deux kon ça veut yaa ngi liggéey loolu moo la mën a mën a nga jël avance léegi yow nooy préparé combat yi yow ñan ñoo la si jàppale bu baax a baax waaw combat bi moom munu ay xale li ñuy def chaque jour mooy li père Maxime naan mbër mbër bu ndaw du préparé day pare ñun loolu la ñuy def dañoo nekk ak suñuy grand ñoo xam ne ñu bëgg ñu am ci ñu yaakaar bu baax a baax kon yaakaar boobu ñu am ci ñun du yoon ñu leen koy ñu loo xam ne lu lu lu nekkul yoon la quoi da lay woon wa chaque jour loo xam ne da lay woon mooy lu quoi ñu nekk ci forme chaque jour waaw combat bi ñoom préparé na ko suñu grand yi ñëpp waaw ñoom jéem lee gars yi ku lim tuum teel yi fëga de demande kottu gars yëpp ku lim tuum waa écrit ba bàyyiwuma kenn ñëpp ci jàpp barke Seydina Mohamed te may teg lu métti ma ne xale mais du ma bàyyi parce que man damaa bëgg ma may teg lu métti te dama ma koy teg waaw maa ngi santaat nag bu baax ci ci ni ma wóoloo xam nga dama teg lu loo xam ne am na sama benn maire boo xam ne moom mention spéciale la kooku du ma bëggal boppam mu nga dégg fële parc danay jox ndox chaque jour entraînement barke Seydina Mouhamed kooku mën nañu koo fay suñu maire boobu dañ koy ñaanal yàlla yàlla yokk ay xiwalam li mu li mu bëgg ñun yàlla def mu am ko lu dem ba téye roi des arènes loolu la ñu gëm ñun barke Seydina John Sina ñu ngi lay nuyu baax di la di nuyu waa fii yëpp euh, nga war a jëflanteel Ama bu samsam sam jours bi lan nga koy yóbbante lan yóbbante Ama. bu Sam-Sam moom nga yóbbante bëriwul. waaw li ma laaj moom naa ci naa ci sawar a tontu sama adversaire muy Ama Sam Sam dama koy ñaanal jàmm ñaanal sama bopp jàmm ñaanal ñëpp ñëpp jàmm di ko wàll jour si jon si naa mu ngi mu ngi ñëw na xaar moom incha allah du def dara maay def bu soobee yàlla. waaye est-ce xeex ak moom. ñun pare nañ ci yëpp côté yëpp côté ñun ay xale nañ nekk ay yoon ñooy tàggal mu metti muy boxe muy xeex muy bëre bëre moom bu ñu ci ooyee daw parce ñun. dañuy bañ dañoo bëri ba ñu oyoo la magicien la magicien ku ne xam ne lii magicien mooy jinne waaw ñun bëre moom macha am na nañu ci loo xam ne. xam nañ ne yow la ñuy wax le magicien. waaw ci bëre. waaw moo tax ma ne ndax jour ba di nga xeex. waaw ñun comme ni ma la wax rek ñun dañoo ay ndaw la dañoo pare ci lépp moom bu ñëwee tey xeex ma duma ko su bëree incha ma daan ko weer ko ay xale lan dañuy liggéey bu baax a baax ay ay grand topp ñu ginnaaw di teg lu métti ñu ngi ñuy jël def loolu kon yaakaar naa tey amul xele buy taaw suñu suñu kanam wala suñu moroom ñu am luñu xel ñaar ci moom bu dee ci côté boxe sóor dañ koo muy démonté muy fëgala suñu suñu coach bi waaw laay le grand boxeur moo ma doon tag gaay léegi waaw doon gis sa combat passé nga bëgg mbooloo mu bëri arène nationale yaa ngi dégg mbooloo mu ba man mbooloo man damaa jaaxal nga jëw ñàkk ko est-ce bi paa yaa ngi loolu wala déet waaw li may wax ci loolu rek question bi man mbooloo mi dama xaw ma lu ma toppee sax ndaw xale laa am na lu ma am na lu gis loo xam ne tey su ma jógee jóg ay xale lan barki si dinaa moo xam it su ma amee combat booy seen jàmm jeex na seen fukki dërëm ak seen ñaar dem dañu dajale jox ma te man réew ma di juma seetlu nag daa am lu gis loo tey su ma jógee jóg sama combat bi passé damaa damaa bëree am ci man pour sama recours ma jël sama victoire aw ma defet sama fekk victoire laa toog sama première victoire te incha allah du deuxième victoire baa ngi maa ngi woo supporter yëpp ñu ñëw nag comme li ma la wax rek ñun nee naa la bu ñu jógee ay xale kenn des paa yeeg maire yi ak xale yëpp ay jóg ñun mbooloo moom ca Bawol la ay ay kaar nañu juy yow xam gars xam nañ loolu ñun ñun mbëru la mbëru dëkk la da am lu topp suñu ginnaaw lu yaakaaroon kon caaxaan supporter moom macha allah am nañ jàpp nañ ne ñooñu tey du ñu ëpplee dara parce que dañoo gëm suñu bopp suñu wootee ñëpp ñëw waaw. waaw di di santaat nag di santaat yàlla rek di gërëmaat ñëpp di waaw di jégluwaat bu bu wax na loo xam ne. waaw Johnsina maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. ma ñun comme ni ma ci foofu laay ñëw rek ñun ay ndaw la amaguñu bi amaguñu dara ci lambay am succès nit ñu nu waar tey ñu dem bëre ji suba ñu dem mbabate ñun loolu lañ gëm waaw yaa ma tey succès jaaxalunu parce que tey bu ñu jógee suñu mbokk jóg suñu dëkkandoo jóg suñu amitam jóg kon loolu succès la mais ñun succès jaaxalunu waaw dañuy dañuy liggéey ngir suñu kanam waaw yaa ma gën a xam. waaw Pambay jox ko mu wax. Pambay waxal. non non waxal rek waxal say. waaw ginnaaw bi ñu sottee yàlla junne la junne bi sallallahu alayhi wa sallam di di déglu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm sakku ñëpp jàmm waa di ñaanal jour si waa koñ yëpp. raay ba parce que lu ko junee keppaar ga toujours kaay keppaar ga baraada ba. waa Isbeth mafia bi waa Isbeth si waa an waa mafia naar bi. waaw maa leen di woo ñoom ñëpp. waa di sant waa Yaraax bu baax a baax a baax waa waa Yaraax sama dëkk sama dëkkandoo yi la foofu ñëw nañ ñoom xalil ñoom xalil ñoom Papa Sène ñoom. waaw ma ma delluwaat di sant suma benn doyen boo xam ne sunu papa la sunu grand sunu lépp la. mu futur maire de Dakar ñu koy wax maître Pa maître Pa Mbaye waaw day day sonn ci ñun bu baax a baax a baax barke Seydina Mohamed day sonn ci ñun bu baax a baax moo taxaw nii billaay walaay ñu ngi koy sant di ko gërëm gis nañ coono yi moom ñun day sonn ci booy chaque jour bu jógee entraînement bool bi koy teg ñu añ ba ñu reer ba suur barke Seydina Mohamed te loolu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal jàmm xiiwal gën a yokku déwén élection yi di ñëw mu doon maire plateau waaw tubaarkalla waa di seen père di seen père Saloum père Saloum loolu bu baax yaay maire ki ne maa ngi koy sant waa koñ bi maire sama maire sama mafia maire maa leen sant bu baax sama reer jàggatu reer bi bindu faal les fatigables barke Sidina Mohamed sama tout tànk yi waa di sant ñëpp di woo ñëpp ci combat bi yaa ma gën a xam di woo ñëpp maire Coumba Sène waaw incha nu xam ne jonti naa doomu koñ bi la te yàlla mbir la mbëru gox la barke Seydina Mohamed maa ngi woo ñëpp di woo sama dëkk ñi may jàpp ci combat maa leen woo bu baax a baax ñi ay grand maam ñi ciy jàpp bu baax a baax grand waa Père Bara Sène Maître Pape Sène maa maa ngi woo ñëpp sama waa dëkk waa ak yaay waa ak yaay maa leen woo surtout ñëw dooleel ma waa Bombay baaw tunu baaw lépp ku jum lum jum man joti naa mbëru baaw laa mbëru gaxu laa man ñëpp may bégee barke si naa waaw man maa ngi jég bégee ñëpp barke Mame Samba Modou Moussa Fall borom ci Fall maa ngi bégee ñëpp waaw di sant waa site bi yi fi ñëw maa ngi sant ñëpp waaw wasaare bépp site bi fi ñëw maa ngi sant bu a a baax waaw de daal waa site bi bu mu bi rek nan koo ma daan quoi maa ngi sant ñëpp waa wasaare sama grand Pogba l'international bi maa ngi koy sant maa ngi sant ñëpp képp ku ci jàpp presse yi presse yi amaa bu Yaraax gars yi maa ngi sant ñëpp maa ngi déglu nag su ma waxee loo xam ne war ma ko wax wala sant ma ko xam ne war ma sant maa ngi sant ñëpp di sant sama jéel yi sama jéel maa ngi leen sant bu baax